ministre yàlla nga reculer tuuti. maa ngi leen di nuyu di leen sant li tax ma leen di sant mooy dañu bokkandoor teeru gan bu màgg dañu bokkandoor teeru gan goo xam ne dafa sori ci ñun mais surtout dañu bokk teeroo ndoor gan goo xam ne suñu nawle la te nag ku am sa nawle ku ne. doo bëgg mu gën laa gore kon man tey duma wax ci la ministre Alioune Ndoye duma wax ci le ministre Karim Fofana duma wax ci membre délégation bi yépp nga xam ne le maire de Dakar Plateau le ministre Alioune Ndoye tête de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Dakar moom la àndal ñu ràññee ci mboolem membre coalition Benno Bokk Yaakaar ma mën si seppi suñu frère Mbacké Seck bu réew mi ñooñu ñëpp duma wax ak ñoom ñaar tey laa fas yéene waxal ba ñett ñi jiitu wala ki jiitu mooy Tamsir dina am lu wax mooy coalition Benno Bokk Yaakaar bu Sicap Liberté danaa wax ak ñoom ma daanelee nag ci yéen ndax Tamsir dafa ne jeunes yee ko yor man ma ne mag ñee ko yor mag ñee ko yor xam naa ne nag xale yu bëri ngeen dangar bu dul woon teg yéen du sotti waaye mag mag na bàyyi cim réew kon bu ñu amee mag ñi am ndaw ñi lu ci des am nañu lépp Tamsir waaw lay sant di la gërëm nuyu candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar du de la liste nationale ngay suñu candidat ñun waa Sicap Liberté mu nekk suñu sac nekk suñu fierté sànq dañu ne da bari teraanga danga nga ñàkk ki ndax wax sa baaxu moroom bu wàññi ci sa baax dara déedéet ma ne li tax ñu war a wax ne danga bari bëri kiñaan da nga ñàkk teraanga mooy dafa mel ni dangay am kersa bul am kersa fii àdduna la ku nekk da ngay far fa neex ku nekk da far fa neex day am ñu la bëgg yow Tamsir am ñu bëgg Alioune Ndoye am ñu bëgg Karim Fofana am ñu bëgg Santi Ay am ñu loolu loolu adduna la xam nga lan moo am solo mooy bu ñu demee ba enjeu taxaw bu ñu demee ba situation taxaw ñu xam lan moo gën ci ñun li gën ci ñun nag ñun waa Sicap Liberté lu tax ñu am ci wërsëg mooy suñu boroom daf ñu wan bu ñu àndulee du ñu am ndax li fi xew local du caa génne amuñu doole ndax ñun ñii fi toog bi ñu boolee suñuy doole mais kenn duñu séen rawatina ñu jël commune kon li ñu dal mooy nañu àndandoor nekk benn dem tant que loolu defuñu ko dina néew lu ñu am fii donc c'est ça l'enjeu mais ku ne faru beneen bi mooy damay remercier waa coalition Benno Bokk Yaakaar bu Sicap Liberté ma ciy jiital suñu doyen suñu kilifa l'honorable député Sampou Ser Aly ndax seete nañu miir nañu aar nañu te mi yor pusoom di ñaw loolu bu ko defee def na li ko war def na li mu xam kon honorable ci sama tur ci turu comité électoral Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté sant nañ la gërëm nañ la ci sa taxawaay taxawaay boobu nga am taxawaay boobu nga am moom la madame D bu LD am moom la waa parti socialiste am moom la waa réew mi am moom la waa LDR Yeesal am moom la waa APR am moom la responsable yëpp am Tamsir Soxna wax na ko sànq moom la comité électoral yëpp def kon yéen ñëpp sant nañ leen gërëm nañ mu des nag ñu ñëw ci yéen ni ko Tamsir waxee président dafa def li ñuy wax inclusion sociale et économique priorité dafa ne réew mi li ko war a tabax ñëpp a ci war a dugal loxo loolu mi ngi ko wax depuis avant 2012 bi muy indi programme am yoonu yokkute mu ñëw ba jël nguur gi en xool li ci ne seet la ca am mu boole kook la fay xam-xam yi fi màccoon bàyyi mu jël yëpp tëgg ko mu nekk plan Sénégal émergent mu indi ci ay projet ak ay réforme yoo xam ne yëkkati ministère lëmm rattaché ko présidence de la république dénk naa ko Karam bi mu ci loolu mu ne du ma yem foofu plan boobu dama koy décliner def ko ci juróomi initiative initiative bi njëkk bi nga xam ne du ma nelaw du ma yendal du ma fanaanal loolu rek laay def laaj leen ma lan la payer sa jeunesse président Macky Sall nee na du nelaw du yendal du fanaanal jeunes yi mooy ay priorité teg na ci yeneen secteur deuxième secteur bi mooy économie sociale et solidaire boobu la ma dénk mais ci jeunesse yi laay yem parce que daf ci def lu am solo liggéey ci lu am solo ñu wër réew mi liggéey ci defal programme jeunes yi mais mu ne ñu sepp leen nag communes yi dem leen ci gox-goxaat yi ndax bërki démb la recevoir mboolem marché yi nga xam ne ñi ngi nekk ci région de Dakar jàppale leen te ñëpp xam nañ ne suñu yaay yi suñu papa yi suñu nijaay yi ñoo ne ci marché kon ñooñu ku leen jàppale jàppale nañ njaboot bi mais mun a yemul ci loolu danaa yëkkati lu takku dugal ko ci commune yi ñu tàmbalee ko nag commune Sicap Liberté ndax comme man maay joxe bu ma neexee ne premier Sicap Liberté dafa naan ah maa duma jël beneen commune Tamsir daf ma ne déet bul fàtte contrat bi Sicap Pureur Teel kon tàmbalee nañ ci yéen waaye li ci ëpp solo du financement yi nga xam ne ñu ngi koy joxe li ci ëpp solo mooy ngeen encadré li ci ëpp solo mooy ngeen def formation li ci ëpp solo mooy yéen ci seen bopp. en tant que jeune que vous décidez vous-même de votre destinée, que vous décidez vous Il est temps la jeunesse cesse, cesse d'accepter que l'on pour elle. Et ça, nous comptons sur la jeunesse de Sicap Liberté. Parce que Sicap Liberté dafa mus nekk référence boo xoolee jet d'eau yi fii ku doon daw biir Dakar da ñëw jet parce que c'était la fenêtre de Dakar fenêtre boobu nekk Dakar loolu la bëgg àndandoor la jeunesse de toutes les SICAP te loolu contrat la bu may jël ak Tamsir nous devons prendre un contrat moral fii parce que boo indee sa doole ma indi sama doole état ñëw indi dooleem doole nit leneen ak leneen ñëw dooleeku mais yéen ñiy toog am yaakaar ci ñun ma ne dinañ am yegg fi ñu bëgg kon tey kenn ku nekk waratul xool boppam rawatina. yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak ñun bu ñu xool suñu bopp nañu xool bu ñu àndee lan la ñu mën a am nañu xool bu ñu àndee fan la ñu mën a dem ndax àdduna bi jaxasoo na Sénégal am na alal bu ci feeñ te nit ñi duñu bàyyi noonu ah duñ ñu seetaan bu ñu gisee ñaar ñuy dem sax bëgg ko yàq mbaat sama laak réew moo xam ne am na alal boo xam ne nit ñi soxla ko kon élection yii ñu jëm ginnaaw suba dimanche buy taw sax soxlawul imperméable wutal sa serviette takk ci mbuus li tax ma ne wutal sa serviette takk ci mbuus mooy bëgguma ñu tooyal bulletin yi bu ñu duggee ci bureau de ñu duggee ba ci biir bureau de vote ñu génnee suñuy serviette pomp ba wow man de maa ngi toog naan mu taw mu bañ a taw buñ naan 7 heures ma matin jot na may départ kenn du ma jiitu sama bureau de ma voté voté Benno Bokk Yaakaar ba pare fii ak tey ba dimanche ñun dëgg la Sicap lañ dëkk mais fu ne am nañ fa xamee ci dakaar bu ñu demee Médina fekk fa suñu ay nit bu ñu demee Fass fekk fa suñu ay mbokk bu ñu demee Cambérène fekk fa suñu ay nit région département commune yu ñu dem ci 19 commune dakaar yi nañu fa sensibiliser ñu ñu fa am ndax nag ñun pël bu rafet bu xees bii lañu bëgg jiitu ko ci mais nañu xam ne nous jouons notre destin pas parce que nous pouvons perdre nous pouvons gagner mais parce que l'avenir que nous voulons se construit aujourd'hui et on a les en main on a les en main pour construire notre avenir li ci des ci wàllu entrepreneuriat des jeunes ci wàllu programme des jeunes dama koy bàyyeeg le ministre Alioune mu wax mais en engagement bi ñu mën a jël mooy bu ñu doon def fukk wala ñaar fukk wala juróom-benn fukk ci effort pour la jeunesse mais on quatre vingt pour cent incha allah te balaa muy yàq bi ngeen ci xam dara ndax le contrat que nous voulons avec vous ce n'est pas un contrat d'élection parce que ku ci damm koñ rek fekk ñu suñu biir kër ñun fii lañ dëkk demuñu benn kon nag li ñuy wax dañ sori ci ñun ñu fas yéene ko jëfandikoo. àndandoon jox le président Macky une majorité absolue à l'Assemblée nationale maa ngi leen di gërëm. merci madame la ministre.